pour dire que dafa juum donc est-ce que du euh, pression bi ngeen ko tegal la xëy rek ngeen ne non nangam nangam xam ngeen. aussi bon léegi comme ah, naan dafa juum non mais on lui accorde la la <laughs> ah, non mais xam nga aussi ku génn wax ñu attaqué ko vite fait. de bonne fois mais est-ce que justice xàmmee na ku juum. <laughs> non justice xàmmee na ku juum en tout cas mooy. c'est vrai que justice mais comme moom aussi dañ ko invité woon. mooy la <laughs> wax na ci nekkul ministre de la justice. donc. beneen beneen yoon nañ def li ñuy wax bu la journaliste invité laaj ko question yu mu la war a laaj c'est parce que ne nañu ko relancé baaxul. Ah, ne lapsus la aussi loolu dañ koy nangul. ba effectivement bon. loolu loolu daal loolu man daal en tout cas comme loolu la wax. man daal loolu laay jàpp ko quoi. en tout cas mais man à amoo amoo mon à mon à mon avis sens donc question bi en tout cas dañ ko war a dañ ko war a éclairer. parce que y a des vies comme ça ne peuvent pas passer par perte au profit. donc c'était des gens qui étaient là. Okay. qui étaient mais est ce que l'affaire Fulbert euh, ak euh, François Mancabou la ñu war a leeral hormis les quatre vingt sept quatre vingt six personnes yi ñàkkoon seen bakkan. mais effectivement à mon sens lépp la ñu war a lépp la ñu war a lépp la ñu war a leeral. particulièrement ñooñu nga xamante ne si quand même il servait surtout l' état à un certain niveau il appartenait à des à à, à des de de de souveraineté armée. donc je pense que en tout cas question yooyu dañ ko war a war a war a war a clarifier là. ok mais ni débat bi agité waatee actuellement tout le monde en parle ay points de presse par ci par là aussi jàpp nga ne <laughs> dina xaw a yomb ci état bi justement ah mais bien sûr l'État en tout les moyens quand même état tamit du du du du du fawukaay. oui c'est un instrument très nga xamante ni si bu ñu jaaree en tout cas fi ñu war a jaar utiliser jumtuwaay yi ñu war a utiliser. je pense que les choses seront seront seront éclairées quoi. ok sa avis ci loi d'amnistie bi yow. loi loi d'amnistie bi man je pense que waxoon naa ci li ma ci li ma ciy wax invité woon nga ma ci <laughs> ci mon point de vue par rapport à. <laughs> waaw mais tey sa gis laa <laughs> ah, bëgg sa xalaat laa bëgg am man tey. en tout cas loi d'amnistie bi. en son temps on l'avait critiqué parce que loi la ba nga xamante ne si man personnellement mosuma ci musuma ci musuma ci mm. ànd yaa ngi dégg parce que c'est Macky Sall qui a commis ses ses ses ses ses erreurs il a commis des bêtises il a voulu rectifier ça à travers une loi d'amnistie te képp ki nga xamante ni si incriminé woon nañ la jàpp la jiñ la dara ba tax ñu jël la daal lay tëj kaso je pense que ñu la génne noonu aussi facilement parce que mm. on doit quand même la lanterne des quatre-vingt-dix jours xawma quatre-vingt ñii def nañ fa quatre-vingt-dix jours ñii def nañ fa neuf mois et cetera et cetera bon je pense que tout ça quand même mérite d'être mérite d'être mérite d'être éclairé éclairé mhm. ok imam sa gis-gis euh, ci wàllu Fulbert Sambou ak Didier Badji je vois que débat bi agité na euh, sorti wu Ismaïla Madior Fall na dafa mel ni moo yee mbir mi euh, ñun de arab dañu ne waaw buntu tuumaa ngi nii mhm. tuuma mhm. néegam a ngi nii léegi ko ubbi bunt bi nag ba dugg ci biir mhm. yaa tuumaal sa bopp Ismaïla Madior mais nee dafa juum génn tuite naan dafa juum non mais dafa juum la wax mais ni da ngay juum imam amul juum juumul Ismaïla Madior juumul de kañ nga gëj a dégg Ismaïla Madior yàgg na à yu coow lu amul écart ak yooyu noonu je pense que wala waxul bi ñuy def affaire dialogue ci ci affaire justice la xaw ma. Mhm. oui. Ah, mhm. invité wu ko ah? bi xam nga lu ñu wax. Mhm. dafa xotti invitation bi la ñu wax. génn moom lu mu représenté lu muy wax. lu muy jàngale. droit lay jàngale constitutionnaliste la. waaw droit lay jàngale fële ci université. lu tax dematul jàngale ji. ba yaakaar naa keroog ci émission bi laa dégg mu changé sax avis ne bon dana delluwaat université pour jàngale ji ñett yooyu rek tuumaal na ko léegi nag lu provoqué émission boobu. Mm-hmm. lu tax ndaw si dem woo ko ci période bii ak li ëpp solo ci waxam yépp du dara lu dul jël ñaar ñooñu indi teg. mais borom xam-xam la aussi borom xam-xam la aussi dafa war a wax. borom xam-xam ak fekkee bokkul léegi ump ko ah waaye deewu Fulbert ump ko état dara ump la surtout na nga nekk ministre de la justice donc nga ñëwati fii def li nga def ba pare taxaw ne woy damaa juum c'est dafa yomb yàlla moo leen di weer benn par benn te mënuñ ci dara yi ñuy wax yëpp di wiir wiiri jaar nañ wax mbir mi ay boo waxee ñu porter la plainte ak boo waxee ñu defal la sommation inter waaye yooyu nañ sommation yi ku dugg buntu tuuma ñu tuumaal la Ismaïla Madior moo tuumaal boppam la gën nag ñu ko koy conseil mooy na taxaw ci yoon leeral affaire Fulbert ah beneen bi ci des booy boobu ñu jàpp ne dafa toog trente cinq secondes xuma treize secondes di mbëkk di mbëkk weñ yi François man ndeysaan soxnaam si est-ce que nekkul di ma dégg ak ah, kan la ci soxnaam décédé sax. du du moom waaw kenn kenn ci gars yi soxna si soxna Franck François. oui. dafa dafa mujj lu mu lekk da koo të. ba bloqué la dafa mujj bëgguma wax yenn détails yi fii parce que. Mhm. man xam naa ko bu baax a baax. dafa ma doon woo téléphone. Mhm. mais li ñu teg njabootam li ñu teg soxnaam. ci yu ñàkk fayun fanu yii nga yu ñàkk solo yu senegal yi loolu ñu ne dañ koy bàyyi mu sedd ay amnistie euh, demb si non mënul nekk bàmba. mais amnistie moo tax Ousmane Sonko gars yi génn de ñoom jamaay yi. waaw mais xam nga ñoom àttewuñ leen ba fi may wax ak yow. àttewuñ leen way la wala déet. way àttewuñ leen mais yaakaar ne Ousmane Sonko lii dana ko bàyyi mu jaaxle noonu continuer noonu kon suspect am ci moom parce que dañ ko tuumaal te tuuma gi amul. tôt ou tard danañ ko àtte. danañ ko àtte kon su boobaa dafay tekki ndomal tànk yi dem taxaw. lu mu laaj moom alaat kulli xaalin moom Ousmane Sonko moom. paaka la kenn du ko jiitu ci mbar. sos yu tooyee nii lu tax mu ne dossier Mame Mbaye Niang mu ngi ci sama portable. Mhm. c'est pas pour rien moo tax moom ne kon nañu teg dossier yooyu yëpp continuer def ci leneen rapport am na ou rapport amul mu taxaw grand théâtre ne leen ki doon kàcc naan rapport yi amul ak dugg na fii rapport bu ma nga sama ta sama kaw table tege <laughs> mais beneen bi ci des mu taxaw wax ñëpp na leen li fi dee tudd Fulbert tudd ñëpp ne leen ku yaakaar ne dañu koy gome noonu mu dem nax nga sa bopp loolu koy wax ji leer na <laughs> man du lu ma créé wala lu may sos danañ leen topp fa mu jóge ak nu ñu jàppe kenn ki sotte ko sotti ko ay acide ba yaram moo dund ki mënatul mais dafa am yu ñaaw yoo xamante ni mënoo ko wax ah ci plateau ba pare yow nga jël nga jël nit mu xaw ma soi-disant nit la xaw ma kan la présenté ko ni way dafa lab ma nga feeñe jifale bo bon mënuñu ko autopsie dañuy fen jëluñu ki ñu ne dañ koy autopsie kan la du Fulbert waaye Fulbert la ki ñu trouvé noonu du Fulbert te nañ ci dellu yow nga trouvé nit koo xamante ni dañ ko war a defal déy catholique la dañ ko war a dugal ci seen kii indi ko teg ñu defal ko prière. oui jëppaloon je pense nit nit dugg ci biir géej lu ëpp cinq jours lu ëpp une semaine dee génn mën nañ ko defal autopsie am na ñoo xamante ne dee nañ ñu suul leen. ba pare sulli leen. defal leen autopsie xam lu leen rey. yàgg na am na ay sëñ bi bu ñu fayee Sénégal. science dépassé na foofu ay bandi ñoo ñu jiite woon ay grand bandi ñoo ñu jiite woon. doon def lu ne ay voyous yoo xamante ni def lu leen neex. ñuy ñuy yox yoxi pour pour pour jaarale leen ci yoon du Ousmane a koy def du Ousmane du Sonko. jërëjëf sa jàngat ci par rapport ak euh, l'affaire